salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fu waay mën a nekk waxtu wi taamu seen émission diaspora ñi ngi lay nuyu di la jaajëfal ci tànn ak ànd bi ngeen ànd ak ñun ngir ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo soxal les Sénégalais de la diaspora laataa ñuy tàmbali nag balaa dara di xew dañuy wax ñëpp bonne ne Euh, di ñaanal euh, fépp fu waay nekk waxtu wi di ñu seetaan atum jàmm atum naa naataange atum xéwal euh, lépp lu nit mën a ñaan wala nga mébét ko rek yàlla na ko suñu borom def ci daraje yonent bi képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi di fi yeewoo religion boo mën a am koo mën a doon maa ngi lay ñaanal di la ñaan nga ñaanal ñu bu ko defee nag at mi ñu génn nekk souvenir boo xam ne day passé tàmm nañ ko wax nee nañ après la pluie le beau temps ñuy am yaakaar ñaan dafa am doole nañu ñaan rek suñu borom daal di ñuy tàgg àggaleeg li nga xam ne moo lëmbee àdduna bi ah, di ziar ñëpp nag ah, tàmbalee ko fii may liggéeyee ah, dooree ko ci bopp bi ki nga xam ne moom moo di la président Youssou Ndour ñi ngi koy wax rek bonne année di ko ñaanal lépp loo xam ne mébét na ko ci at bi yàlla na ko ko suñu borom defal mook njabootam di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jiite jiital ci Ndiaga di ko wax nag yàlla na la suñu borom defal li nga xam ne moom nga bëgg teg ci son frère Bouba di wax tamit Birane Ndour également ak tout le personnel képp koo xam ne yaa ngi ngi yeewoo euh, groupe Futur Média ak képp ku nekk Sénégal foo mën a nekk di yëngu rek ñu ngi lay ñaanal atum euh, jàmm atum naataange di ñaan 2021 yàlla na dàq li nga xam ne euh, moom la ñu weesu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbégte la ñuy am nag saa bu nekk bu altine jotee ñu toog fii jàkkaarloog yéen ngir defal leen li nga xam ne moom moo di seen émission diaspora tey jii nag ñu am émission bu spéciale boo xamante ne bi ki ñu invité tey jii ci suba ba léegi nit ñaa <laughs> tànn naa ko xam naa ko waaye nag euh, mbir yi daal dafa mel ni euh, sénégalais yi muy communauté sénégalaise bi euh, jox nañ ko bokk bu baax moom nag ñu ngi koy wax Ibrahima Niane Euh, ñu ne connu pour son engagement en faveur des causes des étrangers yamul rek ci sénégalais yi y compris le mouvement syndical italien ah Ibrahima Niane a été élu avec brio ah secrétaire général de la Filea de Brescia au terme de leur assemblée générale ah 40 pour cent des membres de ce syndicat sont issus de l'immigration une fierté pour toute la communauté euh, sénégalaise d'Italie et particulièrement de Brescia sa région ah mu fas yéene nag ko tabbee tabb boo xamante ne c'est la première fois euh, ñu koy tabb doomu Sénégal euh, muy euh, natif de la banlieue pikinoise il y a de cela 45 ans Ibrahima Niane est arrivé en France en 1990 en 1991 il s'installe en terre transalpine notamment à Naples il travaille comme boulanger puis à Comme en 1992 à la suite de plusieurs expériences syndicalistes il imposa son leadership au sein de la CGIL depuis il n'a cessé de gravir les échelons jusqu'à son élection la semaine dernière maanaam fan yee ñu génn wala am na at wala moo xam dina ci ñëw ak ñun mhm. ah, comme patron de la Filea dans la province de Lombardie euh, foofule euh, ca Brescia mu nekk jàmbaar joo xamante ne kenn dootul naatable li nga xam ne euh, liggéey na ko ba tax na communauté sénégalaise bi am fu ñu ko teg bu ñu gisee doomu Sénégal boo xam ne mi ngi juddoo fii ci Pikine daal di dem fi nga xam ne moom moo di bitim réew siggil fa Sénégal ci secteur boo xam ne bois la ak construction euh, ñu koy wax euh, Filea waaye nag Ibrahima ñaan mooy secrétaire général Filea boobule euh, Brescia ak province bu centrale syndicale muy premier étranger élu secrétaire général de cette catégorie muy originaire du saalum ne à Pikine donc Dakar li ñu fas yéene waxtaane tey nag am na ponk yu bëri yoo xam ne dina ci am bi ñu ci jiital dina jëm ci retraitu doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu la ca Italie également problème mu législation euh, ci document wu sénégalais yi euh, nekk ci ambassade du Italie euh, bu Ndakaaru et souvent day faral di bloqué wu li koy bloqué loolu yëpp pour sénégalais Italie pour surtout seen allocation familiale dinañ fas yéene waxtaanee tamit li jëm ci législation wu document Sénégal wu ambassade du Italie bu dakaar moom laa wax léegi ak itam lan moo ko bloqué ak itam yenn point bokk na ci convention yi nga xam ne gis nañ fan yéene ñu génn Espagne moom waaye euh, jot nañu ko signé itali fan la ci toll ak euh, naka lay demee loolu yëpp daal ak yeneen point yoo xamante ne nii euh, dinañ ko waxtaanee ci biir seen émission diaspora muy point yoo xam ne yu ama am solo la Italie gépp nag ñi ngi leen di nuyu ndax ñëpp a ngi toog di seetaan ci suba ba léegi ñi ngi may def signe naan ma am nga invité boo xam ne invité bu mag la macha allah ñi ngi lay nuyu Ibrahima di la dalal ak jàmm di la bàyyi ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan fii mhm. ci àdduna bi fépp waaye ak fële na le maa ngi leen di fay bu baax. Mhm. di wax bisimilah rahmaani rahim di mhm. nuyu sénégalais yëpp. di mhm. nuyu suñu ministre de tutelle. Euh, parce que immigré war nga nuyu sa ministre de tutelle. parce que ñoom ñoo ñu yor. nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Brescia yëpp. nuyu patron kër gi tamit ak ay frères ci engagement am. nuyu ñi ma àndal. Euh, nuyu sama famille tamit surtout. samay parents muy sama samay waajur. ak samay soxna ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. di leen mhm. ziar bu baax di balu parce que. di ñaan yàlla tamit luñ fi wax mu jëriñ parce que. bu la nit ñi mhm. yaakaaree. da mhm. bañ dëgg la dëgg la donc ñu ñaan yàlla a maa ngi lay nuyu yow it bu baax. di ziar si ñi ngay liggéeyal la euh, kontaan nañu bu baax ci sa teewaay est-ce que mën nga ñëw ak ñun ci li nga xam ne nee nañ dañ laa tabb mu nekk defe naa pour la première fois euh, secrétaire général mun nga ñu ñëwal ci li nga xam ne moom moo di élection boobu ak lan moo ko sabab laataa ñu dugg ci waxtaan bi. waaw loolu sant yàlla la parce que mhm. nit ki boo nekkee ci dara gëm ko di ci liggéey mhm. yàlla moo la ciy may ndam bu la ci yàlla may ndam danga koy sante yàlla mhm. mais peut-être li ko indi tamit du hasard parce que liggéey la boo xam ne euh, dañ ko yàgg def nekk ci ak ay nit di ci liggéey wane ci li nga xam ne moom la ñu xam ak sérieux Euh, ñu dem ba jamono ñëw ñu xam ne kat lii mérito naa ko. donc du question lu ñu lay nommé mais élection lay doon. bëri mhm. woon ay candidat am lépp. yàlla daf ma jàll ci. Mhm. donc loolu li ko indi mooy liggéey boo xam ne peut-être bi ma ko commencé yàgg na. Mhm. Euh, ñuy xool say compétence mesure la tamit ci liggéey yi nga xam ne moom ngay liggéey. xooluñ ci der bi xooluñ dara mais compétence rek lañ doon xool. donc élection yi 96 muy octobre 96. 2016. 2016 ci lañ ñëw ko fal. Euh, ñu sant ci yàlla. doog a renouveler suñu deuxième mandat. Mhm. Euh, te ci deuxième mandat boobu la ñuy yem parce que huit ans la. huit ans la euh, mu nekk loo xamante ne lu am solo la euh, li tax doomu Sénégal fu ñu mën a nekk fonk la lool ci suba ba léegi ñu koy wax waaye tamit taxawal nga fa Sénégal mais taxawal nga fa Afrique yëpp tamit mhm. mu mel ne nag mbirum syndicat la. Mhm. mbirum syndicat ca Brescia muy nag mbir yoo xamante ne nii ci wàllu bâtiment la. ak li nga xam ne moom moo di tabax. laataa moom la ñuy wax euh, foofu la ci Italie nga ci ñëw ndax point bu ama am solo la te mhm. ñor mhm. euh, euh, boo xam ne mhm. jaarul yoon parce que lii travailleurs yëpp di cotiser moom la immigré bi tamit di cotiser mais ñoom ci seen loi ñu prévoir ne képp ku fa sa njaboot nekk am nga ci droit ku sa njaboot nekkul amoo ci moo ci loolu nag yàlla dimbale ñu am ci gis-gis boo xam ne du tey mais am na ay at ci ginnaaw ñu ciy ñaxtu naan leen lii immigré bi fi nekk tamit te famille am nekk à l'étranger daf ci am droit. Mhm. parce que famille famille la que mu nekk ak yow que mu nekk à l'étranger. Mhm. ñu xool tamit ci loi yi nga xam ne communauté européenne génne woon na ko disposition yoo xam ne Italie respecté wu ko. Mhm. ci loolu nag yàlla def ñu ubbi ci bataille boo xam ne bataille bu am solo la. ba euh, fan yi ci ginnaaw muy le 25 novembre. communauté conseil constitutionnel italien ñoom mënuñ ci woon décider mais dañ koy transférer cour européenne bi. Mhm. cour bi jox ñu ci dëgg léegi nag mu laaj nag ñun li ñu ci war a def pour nit ñi mën a jot seen allocation familial donc loolu dinañ ci ñëw xëy na ci kanam. ci mhm. famille ñi ko mën a am ak ñi ko mënta am. ak nan lañ ko war a amee ak blocage yi nga xam ne doon nga ko junj ci sa présentation. Mhm. mooy li nga xam ne ambassade dafay bloqué yenn documents yi. maanaam mhm. tey jii képp koo xam ne soxla nga document au niveau de l' ambassade. munoo am rendez-vous. te lool c'est un problème te pourtant Sénégal mën na ratifier convention de l'AE bi nga xam ne. mën nañ def apostille la nga xam ne nit dootul jaar ci ambassade bi. te tey documents yu bëri mi ngi bloqué foofu. te dinañ ci ñëw yemul sax ci allocation familiale mais dafa dem ci retraite yi dafa dem tamit ci retraite ñi nga xam ne tey seen jëkkër dafa wàññeeku. Mm-hmm. koo xam ne jëkkër mi ngi foon di liggéey ba wàññeeku mu am droit am pension. mais munu ko fayeeku parce que document yi ñu war a légaliser muy certificat de mariage bi ak ñi nga xam ne ñoo am ci héritage bi yooyu yëpp document yi mu ngi bloqué wu te tey kenn mënul am rendez-vous au niveau de l'ambassade donc loolu boo gisee au début ma nuyu ministre de tutelle bi. Mhm. pour ñu bàyyi ci xel parce que loolu dafa doon loo xam dañ ci war a taxaw. te duñ luñ mën a renvoyer waat encore. Mhm. naan dañuy xaaraat mais c' immédiat parce tey képp koo xam ne sénégalais nga xam nga ne tey document yooyu tey ki nga xam ne dafay demander allocation familiale dañ koy laaj. Mhm. certificat de mariage. Mhm. copie littérale acte de naissance say doom sa mhm. livret famille ak certificat d'existence en vie. Mhm. te quatre documents yëpp da nga koy traduire légaliser ko niveau de l'ambassade. et ça coûte excessivement cher. parce que frais yi nga xam ne moom la ci ambassade di teg dafa cher. donc te mënoo am rendez-vous. te ce qui est sûr mooy euh, caisse de sécurité sociale Italie chaque année daf la koy demander pour nga renouveler ko parce que livret famille tey sa famille yàlla tere kenn mën na wàññeeku ci biir at mi keneen mën na ci yokk. kayitu juddu yi moo amul problème parce que certificat de naissance moom certificat de naissance à la kulli mais certificat de mariage tamit parce que sa mariage mën nga ko def tey ah fii ak un nga séparé wala leneen am hmm. donc moo tax ñoom comme que nanguñu ko te xam nañ ne par force léegi dañ koy fay parce que loi bi wàcc na ci seen kaw léegi hmm. donc dañ koy fay donc chaque année dañ naan da nga koy ci hmm. xëy na loolu tamit beneen bataille la li ci tegu mooy Sénégal day polygame te benn jabar bi rek la ñu nangoo fay ak ay doomam beneen jabar bi ñu ko nangoo fay donc loolu tamit beneen bataay la bu ñu war a sumbaat mm. moo tax ma ni syndicalisme du liir rek ay document mm. mais da ngay créer loo xam ne ni da ngay def ci bataay pour mu doon loi ci loolu lañ ñëw ba am ci allocation familiale yi. Mm-hmm. te tey Sénégalais yëpp doon ko xaar immigré yëpp doon ko xaar. Mm-hmm. te tey euh, wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla nous sommes fiers. Mm-hmm. ci résultat boo ñu am bokk ko ak Sénégalais yëpp. loolu mu nekk benn point euh, ci euh, combat yi nga xam ne moom ngeen di mëne bokk na ci wàllu retraite junj nga ko rek. fan yële ci ginnaaw réewum Espagne. signé nañu ko ak li nga xam ne moom moo di Sénégal. mais ba léegi Italie dafa nekk benn bataille boo xam ne de longue haleine na bu yàgg la. ngeen ci toll. waaw foofu. Mhm. Euh, dama ci taxaw seetlu tuuti. waaw ak nan mooy convention bi nga mhm. xam ne moom la Espagne signé. Mhm. peut-être liiruma ko ni ma ko war a liiree. mais du pour man du du du lu rëy. xëy na wax bi ni ñi dinañ ko desee comprendre. mais dinañ ko décortiquer. <laughs> waaw parce que luñ xaar la ko xeex pension duñ luñ la may. loo mérité la loo liggéey la. mais daaw ñu ci jot. ankay ah. dañuy jot ci seen pension. mais xanaa. danga naan man bu ma ñëwee sama réew ndax mun naa ko yóbbaale mhm. mais ce qui est mooy li nga xam ne yaa ko liggéey ba ñàkk ko ñu ne parce que pension du luñ lay may dañ naan da nga lay liggéey au minimum vingt ans mhm. am 67 ans doo ko mën a demander pension bi nga xam ne mooy minimum bi mhm. boo ko moomee kay loo moom xanaa am nga droit yóbbu ko fu la neex ah, benn ñaareel bi mën nga ñibbisi yow sa résidence bi nga amoon à l'étranger nga indi ko fii mu lay fekk si boo ko indee fii donc transfert nga sa sa compte parce que ñoom ci compte lañ lay fay. Mhm. donc sa compte bu la neexee nga déwee sa compte mu ñëw fii. Mhm. donc man li may ragal mooy ñu signé loolu accord yoo xam ne nii leneen lañ cay dëxëñ mooy lu doy waar la. Mhm. mooy nangu say doom yi nga xam ne ay immigré yi ñuy tuddee clandestin te pour man. ci terme clandestinité bi sax dañ ci war a dellu si lan mooy immigration clandestine. ak lan moo tax ñu leen di étiqueter comme des immigrés clandestins. ak lan moo tax ngay signé accord boobu pour ñu mën la des parce que lii sa waa réew ñoo ko liggéey ba moom ko mhm. loolu kay immigré yi nekk Espagne ñoo war a xeex mhm. ba nga xam ne am nañ droit mën a parce que immigré euh, citoyen espagnol bi nga xam ne retraité na réewam ñëw Sénégal wut fi mhm. résidence dëkk fi lan moo tax mu mun koo jot te Sénégalais bi amoon foofu pension mënu koo jot donc yëpp ay demande la yoo xam ne dama bëgg ñu leeral ko Sénégal nag ak euh, Italie mën naa ne ay année ngi ni yoo xam ne tooguñu ci commission mixte bi pour mën a waxtaan pour mën a signer man ce qui est sûr mm-hmm. mooy bi euh, président Sall falo mm-hmm. ki mu faloon ambassadeur euh, consul au niveau de Milan am na ay documents yoo xam ne defaroon nañ ko jox ko mm-hmm. traduire ko en français jox ko ne ko jébbal ko président ne ko lii kat moom la sénégalais yi di xaar ci moom jusqu'à présent amuñ ci retour amuñu ci retour wala ki fa nekk consul ba ni mu fay jógee bokk waxaatu ci ak ñu te pourtant ay dossier la yoo xam ne dañ ci liggéey dañ ci liggéey mun naa la wax fi heure bi ma ko jox ak fi ma ko joxee. Mhm. du lu ñuy weddi. Mhm. te loolu c'était pour dimbali les Sénégalais parce que dañ ne ñun bu ñu nekkee ci yenn poste stratégique yi du ñu xool kat mooy gouverner Sénégal. mais dañu xool lan lañ mën a indil la diaspora lan lañ mën a indil suñu concitoyens yi. Mhm. parce que wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla parce que ñi ngi liggéey. Mhm. ci poste yu baax ñi ngi ñuy fay lu baax loo xam ne tey buñ ko dellawaatul Sénégal ñun gorewuñu parce que Sénégal lañ jàngee Sénégal lañ juddoo Sénégal lañ yaroo ñun ñoo ameel Sénégal lu ñu war a defal. waaw euh, lan la ci euh, sénégalais Italie yi mën a gagné. Euh, ci mhm. convention yi une fois bu fekkee ne bii signé nañ ko. sa ah, dépend ci lan lañ bëgg a signé. maa ngi ko doon wax ci allocation familiale bu yàgg laa ko doon wax bokkoon na sax ci document bi ñu joxe woon. ne leen tey euh, ñi ngi am nombre de sénégalais yoo xam ne li ñu yor ci doom macha allah te ñoom ñëpp ñi ngi fii. Mhm. li ñu waroon fayeeku ci allocation familiale yëpp mi ngi nekkoon ci caisse de sécurité sociale bu Italie. Mhm. te Sénégal kaasu ko woon mënu ci woon jot. Mhm. beneen ba ñaata doomu sénégalais yoo xam ne bi ñu ñëw Italie. ëppal nañ 30 ans. donc ñooñu ñu ëppal 30 ans ba 35 ans mënuñu faa liggéey au moins deux ans 10 mois yi nga xam ne moom la loi bi teg ci ñu war a dem retraite te bi ñu yegg si 67 ans xëy na ci télé la ñuy waxee donc am na ñoo xam ne dañ koy dañ koy. tënk bañ ko leeral benn leeral bi mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne ba ñu ñëw peut-être âge ba nga xam ne moom la am âge bi nekk seen këyit bokkul mm-hmm. ñu dem ba seen kàttan mayitu leen parce que liggéeyu doole dafa am foo xam ne boo fa yegg dootu mën a continuer mm-hmm. donc kooku tey bu fekkee ne liggéey na fa 18 ans wala mu liggéey fa 17 ans te mënul fayee pour retraite amatu fa liggéey wala machines yi usines yi soxlaatuñu ko parce que innovation bi ñu def mayitu leen ñoom ñu liggéey seen xam-xam parce que peut-être jànguñu woon yu bëri xamuñu ko mënatuñu liggéey crise bi ñëw en 2008 2009 2010 2011 ba léegi. Mhm. ak crise bi ñëwaat ci Covid bi perte loo ñu bëri seen liggéey. Mhm. amatuñu liggéey ñu dellu si Sénégal. Mhm. toog te dañ leen waxoon ne leen ku ci am 67 ans. te nga transférer sa résidence au Sénégal mën nga demander sax sa retraite bu fekkee ne amoo woon 20 ans yi. mais loolu est-ce que gouvernement Sénégal xam na nu mu toll. est-ce que gouvernement Sénégal mi ngi koy gëstu mhm. est-ce que ñi ñuy yebal ñuy ñëw à l'étranger dinañ wax ak ñi ñu war a waxal wala dañuy ñëw dem tëdd fu leen neex ba seen ñibbi jot ñu ñibbi mhm. donc est-ce que la bonne information dina yegsi ci ministre de tutelle bi mhm. man de ci li ma xam mooy gisaguma ku ñëw ne ma lan moo fi problème gisaguma ko Euh, foofu nga taxaw foo ama am solo la muy mel ne bu ñu la dénkee rek fi nga war a matale mm-hmm. mooy dem euh, vers l'information jege sénégalais yi euh, moom day am solo lool ndax yéen ñi yéen xam li nga xam ne mooy dëggi-dëggi mm-hmm. jafe-jafe yi am na beneen point boo xam ne am na tey jii bu fekkente ne surtout ci wàllu éducation xale yi mm-hmm. gis nañ ci problème yu bari ba ñuy jël ñoo xamante ne nii dañuy toll ba dañuy nangu seen doom yi di ko jox ñeneen te culture yi bokkul te loolu li koy andi dafa bëri sànq fan yi bëri na torop fi nga xam ne moom moo di foofu la ca Italie loolu lan moo ci sa gis-gis. loolu maa ngi ciy lancé benn appel seen mhm. euh, président groupe bi. Mhm. dafa am dañu immigration dañ ko war a joxaat cër bu rëy. Mhm. xam nga émission bi am na solo. mais heure bi ñu koy def peut-être dafay guddi. bu ñu la ko doon defal dimanche. nga di ko def démarche nga xam ne nit dañu am jot mën ko seetaan bu baax. dafay doon éducation. vers l'immigration. parce que tey jigéen ñi nga xam ne. ñi ngi nekk ci réew ma culture bi ñu yor. ak am na ci ñoo peut-être seen niveau d'étude yeggul fenn fi. ñu ñëw yor njaboot yi ci kër yi. te génn ñu liggéey wala jàngewuñu buñ bëggee yor xale yi ci niñ ko yore Sénégal te loi italienne bi bokkul ak loi sénégalaise daf leen di gàllankoor. bëri na fa ñu ñu nangu seen doom maa ngi nuy au passage ku ñu wax awakan Kane. Euh, c'est une sénégalaise boo xam ne ku am solo la ci foofu. Mm-hmm. dafay liggéey di jàppale njaboot yi. Mm-hmm. te lu ci bëri. dama koy wax ne leen service social social yu Italie mënuñu defar sëy dañuy tas sëy te jigéen ñu bëri ak góor ñu bëri ñi ngi jàppante ci yoo xam ne di dem ci kaw yoon wala bala ñoo dem ci yoon dañuy jaar ci commune bi parce que dañ naan la yow kat boo tasee sa sëy dafa am loo xam dañ koy dagg sa jëkkër di la ko jox mais la ñuy dagg di la jox yow mënulaa dundal mënul yor sa njaboot say doom mujj ci ñoom te xamoo fan la ñuy dem xen mm-hmm. xamul ñaata doomu sénégalais la ñu nangu seen doom donc maa ngi alerté état bi mm-hmm. ñu bàyyi ci xel parce que doom yooyu tey mm-hmm. euh, fa ñuy mujj du neex te dootoo ci mën a jot. beneen culture la ñeneen ñoo te ñoom dafa am benn lu ñuy xool li ko gëstu. Mhm. Euh, pour xool naka la comme ni nga ko waxee rek bu mhm. fekkee ne nit ki ñëw na ci dëkk. Mhm. Euh, jàngiwul liggéey liggéeyiwul wala demul ne bu ñu ñëwee xool rek dañuy jël doom ji récupérer ko yóbbu ko def beneen éducation ci moom. bu bokkul lañ lay wax te loolu dafa doy waar. dañuy jël sa xale parce que. réew la yoo xam ne juratuñ ay doom yu bari. seen juratuñ ay doom yu bari te bëgg doom. tey mën nga dëkk ak ñoom nekk ak ñoom du ñu am ci yow soxla duñ la nuyu duñu la faale mais bu sa doom juddoo rek commencé mën a dox rek ñu commencé la bëgg fréquenter te fréquentation boobu ñuy def nit ñi duñ ci bàyyi xel dañ naan ah sama mère tubaab bi dafa daf may dimbali. Hmm. mais mi ngi lay luñatu sa hmm. jëkkër lan la am lan la lay jox lan ngay def say doom nu ñu kii ci loolu la ñuy dem ñoom ba génnee loo xam ne secret bu nekkoon sa biir kër la. Hmm. nga dem ba ñàkk si sa njaboot. te ce qui est mooy li ma lay nii. tey gox yoo dem am na fa ñun xam nañ ci lu bëri lu bëri loo xam ne doomi sénégalais yi te ba sénégalais dafa bari kersa balaa ñëw ci yow day fekk affaire bi bay weesu mbuus day fekk bañ dem ci yoon. lay def te bu xasee dem ci un tribunal des mineurs mooy décidé te tribunal des mineurs ñoom relation bi leen service social yi jox rek si la ñu pour mën a jël sa doom dëgg la loolu beneen point la mm-hmm. tey jii waxtaan bi moom gis ngeen ko mm-hmm. ah, du ñu mën a sax souffler tellement de points parce que ki ñu invité moom moo waral mbir mi ñi ngi jot nag ay message mm-hmm. ah, soxna madame Mbacke soxna naat ah, bu fees nee na nous avons fait beaucoup de mission et on l'a jamais vu lui aussi qua t des choses concrètes pour garder ses enfants. Mhm. service social boobu la la wax soxna naata. loolu mooy intervention ci mbir mi lan nga ko ciy wax. waaw ah, une so man man it suma ko gis peut-être. Mhm. mosuma ko gis dégg naa turam. Mhm. dégg naa tamit euh, ay daja yoo xam ne ñoom daje lañ ko au niveau du consulat peut ci li ñuy joxe ak yooyu ak ñi ñu koy jox. mais peut-être loolu man du ci dugg parce que man je ne fais pas de la politique ci côté boobu. man li may wax ci immigration la te li may wax mooy ce qui euh, bëri bu ñu amoon benn éducation bi bu amoon ñu leen accompagner bu ñu amoon. une tutelle boo xam ne da leen di accompagner parce que. du ma dugg ci détail mais tey bu fekkoon ne jot ngeen avocat di leen expliquer ay moment yoo xam ne dana bëgg jot ci consulat pour mën waxtaan ak ñoom te mënul woon jot ci ñoom. Mm-hmm. donc bëgguma polémique parce que du ma polémique ñoom xam nañ ko man waruma. li gars yi doo xam ne xam ne nammuma ko parce que mu ne ku ma ci dajal tamit soxlaa lu ma la dërëm maa ngi sant yàlla ñëwuma tamit à de de populisme wala ci leneen man li may def dama naan nit ñi ñoom ñooy jugé donc ñi ma bëgg a gis ñu ngi may gis sama buntu tëjuma ko parce que man maay koo xam ne peut-être xam ne sama numéro numéro vert la bu nekk nit ñaa ngi may woo te ku ma woo ma wuyu la parce que li may wax fayuma ci bor leble wu ma ci dëgg la am na keneen ku mu ngi tudd Seydina Camara nee na merci d'avoir invité un homme intègre une ressource euh, avérée au sein de toute la communauté euh, des travailleurs en général et des Sénégalais euh, surtout en tant que président de l'association des Sénégalais de Brescia et province où il réside et dont il est membre. Je témoigne de son dévouement pour le bien-être de nos compatriotes. Merci d'avoir invité un homme de céréales. Donc moom moo ko wax Seydina Camara moom moo président Camara maa ngi nit ku baax la mhm. dañuy waxtaan ci yu bëri mhm. à chaque moment temps dañuy discuté ba minuit moom ak ku ñu ñu Abdou Ndaw mhm. président association yëpp Moustapha Diagne Moustapha donc képp koo xam ne yaa ngi Italie nekk mhm. surtout Brescia heure bu nekk la ñuy discuter ci lu nekk la ñuy waxtaan. Mhm. parce que jamono moo ko laaj. Mhm. li may wax nag mooy man wóoruma pour jiite association. Mhm. mosuma jiite sax président association wala yooyu parce que. intéressé wu ma lu bëri li may wax mooy nit ku nekk mën nga liggéeyal sañ askan te doo doon président doo doon dara. mais ce qui est sûr mooy euh, maa ngi koy remercier parce que xam naa li mu liggéey xam naa li muy def ci Brescia. te moment bu nekk ñu ngi ciy discuter te dama lay jox bu jotee ñoom xam nañu ni ñuy def ba am salle ak fu ñuy jaar. donc yooyu yëpp ay. aide la yoo xam ne ñi ngi koy def jëmale ko ci communauté bi te ñoom ñi ngi ciy taxaw bu baax donc maa leen remercier. dëgg la ñu ñu des ba tey laataa ñuy tëj point wu euh, euh, allocation familiale euh, kan moo ci mën a bénéficier wu ak kan moo ci dul bénéficier wu. waaw ah, allocation familiale ki ci bénéficier mooy ki nga xam ne dafa am permis de séjour unique pour travail. Mhm. ak carte de séjour mhm. indéterminée. ñi nga ko mën a kii nag mooy nga am soxna am ay doom am tamit revenu di liggéey. Mhm. ñooñu ñoo ci mën a bénéficier wu. parce que képp kuy liggéey mën nga ci bénéficier wu léegi li ñuy wax mooy 5 ans yu mujj yi mën nga ko récupérer bu fekkee yaa ngi soog a def demande bi. parce que li ñu lay laaj mooy nga indi sa livret famille sa mhm. copie littérale acte su xale yi certificat d' existence ak livret famille bu ñu traduire légaliser ko mhm. nga def demande bi léegi nag li ngay fayee ko mi ngi nekk en fonction mhm. sa revenu annuel nu mu toll ak sa nombre de famille donc may ñaan sama mbokk yi tamit ñu bañ a ëppal comme ni ñu daan def ci déclaration fiscale yi bi mu commencé parce que déclaration fiscale yi tamit ay taxes yu ñu lay wàññil la en fonction doom yi nga am ku dëgg la ñu may waxal xam nañ message <laughs> xam nañ seen bopp waa lan mooy yan nouveauté moo am ci euh, allocation familiale bi foofu la ca Italie euh, ñi nga xam ne euh, seen famille nekkuñu Italie nekkuñu waaw parce que mooy li ma xam nga ñi fa seen famille nekk moom amuñ problème parce que mm-hmm. ñoom am nañ fa lépp donc dañ koy fayeeku mm-hmm. li ci bees mooy ñi nga xam ne dañ leen ko xañoon nekku ku fi sa njaboot nekkul amoo ci droit mm-hmm. xeex boobu nag bataay boobu lañ mëne ba tey ñu am ci ndam gagné ba xam ne im xam ne ci dellusiwaat ginnaaw l'étranger te yaa ngi liggéey di am sa bulletin de salaire donc am nga droit demander allocation familiale donc li ci bees mooy ki ñëwoon bu amee carte séjour te njabootam nekk fa mënu koo déposé. Mhm. ñu yokk ci ne ki am sax permis de séjour unique pour travail. Mhm. ci causa bi ñu doon def dañ ko ci boole ba ñu nangul ñu ko donc léegi ki am permis de séjour am carte de séjour te sa njaboot nekk allocation familiale yi. dëgg la mbirum euh, asile politique. Mhm. ah euh, li nga xam ne di euh, asile Italie. Euh, ak étranger yi ñëw lan ban mooy nouveauté yi ci am ci wàllu statut humanitaire. waaw dañ ci changé parce que am na cent 130 bi génn ci fan yi mhm. liñ ci yokk mooy bu njëkk ba dañ ko teengaloon ba nga xam ne nanguwuñu. pour ñu jox la permis boobu. Mhm. dañ naa na sa dëkk dafay doon dëkk ba am problème. boo xam ne buñ certifié la maanaam calamité naturelle wala yu demee noonu wala boddi konte am fa wala xeex am fa mooy tax nga mën ko am léegi nag permis humanitaire bi delloosiwaat nañ ko pour ñi nga xam ne dañuy wax daw làqu maanaam tey buñ duggee ci question humanitaire dafay xaw a parce que dama ko chaque jour nee naa leen un sénégalais bu am permis d'asile politique bu ñu waxtaanee ñun en tant dinañ xam ne am na lu ci lu ci des comme que ñoom du ñuy régulariser. Mhm. du ñuy may nit ñi këyit ci lu bëri. ku nekk da ngay wut système boo xam ne mën nga ci am këyit mais li ce qui est bëri yoo xam ne am na ci tey ki nga xam ne sax dafa demander permis asile politique yor sax reçu bi mën na dem demander inscription ci résidence ci commune yi nga xam ne Dakar daal te bu njëkk mën na ko woon def mën nga dem wuti ci carte docteur mën nga ci am ay possibilité mhm. mën nga dem liggéey. te séjour boobu sax boo ko amee bu la neexee mën nga ko changer def ko permis de travail. Mm. donc yooyu yëpp ay changement la yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, décret 130 présidente bi mu jege na andi na ci ay soppi yu am solo. Euh, pandémie bi nga xam ne moom moo di euh, Covid 19 bi. Mhm. ban conséquence la am ci ci yi am na ko fépp ci àdduna bi mais particulièrement foofu la. waaw dafay am impact bu négatif boo xam ne peut-être. Mhm. ci kanam sax la retombée négative yi gën di feeñ. parce que euh, ki nga xam ne tey. dafa am liggéey di liggéey kooku du am problème bu bëri parce que chômage technique bi. Mhm. gars yi dañ koy renouveler ñu ngi koy renouveler ba ci euh, janvier bi yëpp dañuy fay chômage technique bi. mais ñi nga xam ne nag tey ñu ci bëri ci ñun nga xam ne dañoo mhm. mhm. assuré wu parce que amuñu woon këyit ñooñu lay gën a touché parce que tey boo demee ci dëkk yu mel ay Naples wala feneen nga xam ne ñu ci bëri dañuy jaay. tey tey ñu tere daje bi tere tere génn bi zone impact bu négatif ci ñoom te crise boobu tey bu jugee du leen bàyyi ñoom du bàyyi ñi nga xam ne tamit dañoo ñàkkoon liggéey di xaaraat poste liggéey te ñi daan liggéey ci tourisme ak ñi doon mm-hmm. liggéey ci hôtel yi di liggéey ci restaurant yi ñu ci bëri tey dañoo toog te toog bi li ko waral mooy restaurant yi bëri dañ leen tëj parce que zone rouge bi doo mën a ubbi restaurant yi wala yenn restaurant yi ubbi à domicile la lañ mën a livrer mm-hmm. donc yëpp dafa wàññi euh, dafa wàññi doole bi nga xam ne tey immigré yi amoon nañ ko donc impact boobu te impact bu négatif lay doon moo tax ñu xam ne dina gën a métti ci kanam mm-hmm. mais ah, wax dëgg yàlla ñu ñaan yàlla yàlla teel fi jëlee mbas mi ba nit ñi mën a delluwaat ci allahuma amin moom la ñëpp di ñaan ah, mu mel ne tamit ah, am na benn loi euh, j'espère que prononciation bi loolu la boo Bossi-Fini mm-hmm. Bossi-Fini loi boobu lan mooy conséquence am ci euh, ñenn ci ci immigré yi waaw xam nga loi boobu dafa doyoon waar dama ko ah. daan wax ci jamono boobu mhm. ci télévision italienne yi ci débat yi mhm. ma leen changement bi mu indi parce que dafa amoon benn loi bu ñuy wax loi turco napolitano mhm. boobu moom la loi Bossi-Fini bi ñëw ñi nga xam ne tey droite xam ne dañoo sévéroon ci immigration ci loi turco bi dañoo waxoon ne ñoom citoyen immigré lañ tuddoon lañ tuddoon immigré yi ci loi bi ñu daan dañaa cittadini immigrante lañ daan wax mooy citoyen immigré yi ñii bi ñëwee ci loi fini bi changement bi mi ngi nekk changement bu sottil la boo xam ne dafa sew boo teyul sax doo comprendre mais dañ ne fi ñu tuddee woon liggéeykat bi citoyen bi ak li ñoom ñu ñëw tuddale liggéeykat xam nga citoyen moom dangay am droit yëpp. Mm. liggéeykat bi nag tant yaa ngi liggéey am nga droit yi boo liggéeyatul bokkutoo loolu moo indi li ci topp parce que loi tey boo commencé ñu ne la ki tuddoon ki nga xam ne citoyen la woon ak ki nga xam ne travailleur la. donc travailleur bi tant que yaa ngi liggéey. Mhm. sa titre de séjour mën nga ko di renouveler. Hmm. tant que liggéeyatoo nag moom yow doonatoo dara. ci réew boo fa liggéeyoon vingt ans tamit doonatoo fa dara. loolu mooy changement bi mooy li nga xam ne moo indi moo basculer eh, droit wu immigré yi ci ci par rapport ak loi yi nga xam ne moom lañ parce que dafa amoon loi Martelli bi loi Martelli jàllee turco napolitano ñëw bi turco napolitano ñëw après loi Bossi fini ñëw nag kii bi ñu amoon branche bi ñu amoon ba léegi moom ñu ngi ko téye xëy na dañ koy di modifier rek di am luñ mhm, ciy defar ça mhm. dépend bu gauche bi ñëwee am mhm. lu mu ci nooyal bu droite bi ñëwee gën ko yëgalaat mais indi na conséquences yu bëri ci euh, ci immigration yàq na ci lu bëri parce que ñu bëri ñàkkee nañ ci seen séjour ñu bëri delloosi nañ leen ci seen réew Sénégal euh, ñu bëri tamit xañ nañ leen ci loo xam ne privilège yoo xam ne waroon nañ ko mën a am te amuñu ko donc loi boobu loi boo xam ne dafa marqué histoire u bu baax marqué leen bu baax te nee naa leen tant que dindiwuñu ko fa gouvernement bu mënta ñëw da nga indi ay soppale rek mais ba léegi laalagoo li nga xam ne mooy différence delloowaat nit ñi comme citoyen au lieu mu mel ne kon am na benn euh, sew-sew bu ci am mhm. euh, ba tey rek euh, dëkk bu nekk ak nu muy traité mhm. ak nu muy doxalee pour ñi nga xam ne amuñu kayit mhm. tey ji immigré bi nekk Italie. Mhm. Euh, ban risque lay courir bu fekkee ne amul kayit. waaw risque bi muy courir mooy lu ci gën a bëri ñàkk faju xam nga loolu am solo la maa ngi ko doon yaa ngi ko doon junj si sa si début bi. Mhm. bi ngay laaj ci ñi am asile politique. Mhm. mooy xale yi nga xam ne ñu bëri ñoo traversé géej gi. ñëw am ci problème mu bopp. te gouvernement Sénégal déggaguma lu ñu wax ci ñooñu. gouvernement italien it am ci part de responsabilité boo xam ne jëluñu ko ci. xale yi nekk ci limbo boo xam ne xamoo tey fan lañ war a féetee te traversé géej dafa doy waar mhm. donc nit ki mën na ñëw gis yoo xam ne mhm. ah psychologiquement psychologiquement bouleversé na ko mhm. wala lam doon yaakaar ñëw fekk fi leneen donc loolu am na ci am na ci benn impact bu négatif leneen li ci des mooy ñu xalaat ci loolu nan lañ mën a def ba jox immigré yi tey eh, possibilité parce que tey ñi nga xam ne amuñu kayit li ñu njëkk a mooy kuñ ci jàpp mën nañ laa delloosi Mm-hmm. te pourtant am na réew yu bëri dañuy defendre seen i concitoyens pour nga delloo ji leen c'est très mm-hmm. difficile xaw ma nag consulat Sénégal ak ambassade nan la ñuy doxalee ak ñoom ci expulsion yi. parce que tey kuñ ci jàpp mën nañ la delloo si. Mm-hmm. mën nañ la fa téye euh, gàllankoor yu bëri na te sénégalais ñu ci bëri dañuy départ am métier. ñëw bëgg a liggéey mais loi italienne bi permettrewul une régularisation permanente. boo xam ne ne tey boo amee liggéey am kër mun nañ la defal euh, document mais au contraire dañ naan bu ñu mayee kayit da ngay indi contrat travail doogu mën a am kayit. donc tey loolu li ma ciy ñaax mooy bu ñu signé ay accord de réciprocité. Mhm. ak euh, l'Italie mooy ñu mhm. bàyyi xel ñooñu. Mhm. parce que ñoom li ñu lay njëkk wax mooy bu ñu signé dara sa sa immigré irrégulier da nga leen di delloo ci. man irrégulier laa leen tudd mais du mu leen tuddee de clandestin euh, su ko defee ñu xalaat ci décret flux yi nga xam ne day am booy signé convention dangay bàyyi xel. réew mi ci nan lay dundee ñan la soxla parce que réew mu jurul ay doom. te sa économie soxla ay bras. Mm. il faut dafa am looy soxla. Mm-hmm. ñu ngay soxla nag ñoom nga war a jëli tey kan moo mën a demander visa benn Sénégalais lambda bu jug dem ambassade demander visa ñu may ko gis nga ko gisoo ko. kon nag tey mënoon nañoo fexe ba tey xale yi di bëgg di dem di doon ay irrégulier nan la ñuy def ba tey ci convention bi ñuy signé ak itali ñu am ci part boo xam ne xale yi dinañ mën a jël ay gox ne leen gox bi kat am ngeen mille personnes yoo xam ne mën nañ dem liggéey des saisonniers 6 mois ñu fay leen ñu dellu bu 6 mois yi yéex ñu ñëw ñibbisi. Mhm. toog ba 6 mois yi jotaat ñu dem. Mhm. ci loolu ñuy fay am loo xam ne dañ koy dagg. Mhm. di ko indi ci gox yi nga xam ne fa lañ juddoo mën fa defar mën a renforcer seen plateau médical. mën a am. frais de scolarité yoo xam ne dañ ko fayal xale yi dëkk ci gox boobu du doon seen doom yi mais xale yi dëkk ci gox boobu mhm. donc buñ ciy waxtaan ak ñi ñu a waxtaan mën nañ fexe ba tey risque yooyu xale yi di courir ñëw san document ñu mën ci ñu mën cee bañ a daanu mais xam-xam yi ak yi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey mhm. est-ce que euh, def ngeen jéego pour mhm. euh, nguuru Sénégal jot ci bu ko defee ñu mën a soppi mbir yi maa ngi lay giñal ci yàlla ne maa gën a néew xam-xam ci ñi nekk ci immigré yi nekk en Italie y a beaucoup de Sénégalais ci province boo dem tey responsable département immigration bu confédération bi muy liggéey sénégalaise la jigéen la. seen Sely Kane la tudd c'est une sénégalaise. moom mooy responsable département immigration. zone boo dem y a des boo demee par y a Pape Tall y a nañ sax ñoom seen mouvement CADES defar ay document di ko yónnee. mais ñu leen déglu. et c'est malheureux parce que tey nee naa ki doon wax noonu di bind message naan xaw ma ñëw nañ ital def ay mission gisuñu xëy na mission ba muy ak la ñuy dox bokkul. ñun doxuñu ci ay distribuer xaalis. un immigré war ta xelaat nguur di jël xaalis di ko yóbbul. man loolu laa gëmul. man dama gëm ne ñun ñun ñoo war a jariñ Sénégal. dëgg jariñ Sénégal boobu mooy li nga xam ne retombé yi ñu am. Mhm. ci li ñu liggéey. Mhm. retombé du rek retombé économique. Mhm. mais dafay doon retombé boo xam ne sax day doon intellectuellement ak ci wàllu travail. ak ci xam ne capacité. de travail yi nga xam ne réew yooyu am nañ ko noonu la ñu mën a def ba mhm. indi ko fii pour suñu retour gën a mën a neex ak suñu rakk yi bañ di bëkk di dem ñun loolu lañ gëm te maa ngi lay xamal ni mhm. y a beaucoup de Sénégalais yoo xam ne li ñu créé ci li ñu bind ci ay document bu yàgg sax dañ naan leen li ngeen di bind doy na parce que li ngay bind te jëriñul da nga koy bind depuis quatre-vingt-dix ba léegi di bind di yónnee te bëriwul njariñ ah du xam nga sénégalais du question rek nga jël benn sénégalais yóbbu ko ci conseil des sénégalais de l'extérieur mhm. wala nga yóbbu ko directement au conseil wala nga def ko député non gis nga am yoo xam ne dañoo war a jàpp ne immigré bi dafa amal njariñ réewam njariñam nag du question Western Union bi wala MoneyGram rek bi muy yónnee mhm. parce que loolu xëy na dana am jamono mun na romb foofu waaw dogguma la ñu jël ki nekk en ligne ba pare eggali ci point boobu allo mhm. allo képp waaw salaamaaleykum allo képp si ñoo ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax tur bi nan laa foo ñuy woowee. Italie laa lay woowee damay lépp tur waa waaw ñu ko fay mbaa. <laughs> dinaa leen ko fay. waaw yow rek lañuy déglu. maanaam maa ngi nuyu suma naataango boobu. Mhm. di ko félicité di ko encouragé. Mhm. maa ngi koy woowee Lecce te au sud d'Italie. Mhm. di ko sant bu baax ci leeral yi ndax li am solo te nit war cee bàyyi xel mooy taxawaay taxawaay waruñu ko natt rek fi ko Sénégal yépp di xaare mooy ci politique non man je fais de la politique mais politique bu jeexee dañ ko war a ranger fële dem ci l'essentiel l'essentiel mooy li askan wi moom fu sénégalais nekk ci réew wala ci biti réew mu warloo ak moom ñu delloo ko ko méngoog li suñ gouvernement di def ba tax na gouvernement bi bàyyi xel ci loolu ndax it dama ko naw ci réponse bi mu joxe léegi ci madame Mbacke ndax je vois que il est apolitique mm-hmm. teg noonu la nit citoyen noonu la war a taxawee kon loolu dama ko ciy félicité di ko encouragé di ko wax ne leeral yi dafa am solo ndax keps fii lu bari daf koy lëndëm te bépp sénégalais bu nekk Italie war na koo xam bari nañu ci ñoo xam ne ay ignorant lan ku mel ni man jànguñu te pourtant bëgguñu bañu ñoo xam danoo amut ñu leen jege pour xamal leen dëgg la man fii damaa nekk lécce ma gis ñi nga xam ne damay gis les présidents les président association yi fi nekk te defe naa ne yemut la ci rek taxawaay bi ngay xam ne dañ koy taxawu sénégalais yi ci dans tous les domaines kon loolu dafa am solo am na loo xam ne liy doxal am réew ay nit dañ cee war a péncoo di ci waxtaan man gëm naa ne léeg-léeg nga gis njiitum réew moo xam ne dafay bëgg a dimbale ay doomam te mécanisme yi ngay xam ne dañ koy jaare pour dimbale aw askanam foofa mooy am erreur kon la ca njiitu réew ma doon wut day mujj sax du ko ci am lam cay am mooy lay niru ay mam population ba sénégalais yi ñooy mujj jéppi ko te loolu man jàpp naa ne suñu njiit yi war nañ cee mën a bàyyi xel kon ñu mel ni jëmm yi dañ leen war di invité ci débat yi ñuy mhm. dolli xel ñi nga xam ne mooy ñoo ngi jiite di dellu xel ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal war ci bàyyi xel ci yu mel noonu. Hmm. parce que li mu wax dafa am solo. nga dem ci ambassade boobaak léegi Covid bi ñëw nit bëgg benn dossier ñu ne ko yow amee amoo rendez-vous te ambassade boobu di continuer di exercer ci réew mi te ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk fii li nga xam ne duñ koy bëgg ci suñuy ambassade bu ñu demee fekk ko fa loolu dafa jaraat jàngat. ket ma lay wax ne. Mhm. émission bi lu tax man daf ma intéressé. Mhm. man dinaa ñaan nga jox man sa numéro ci suuf. Mhm. ndax la tax mooy. damay ñaan solennellement le PDG du groupe maanaam Futur Média. monsieur Ndour émission bi ñu ñu koy defal dimanche à dix heures wala onze heures may ñu trois heures de temps bu ko defee képp sénégalais bu nekk bitim réew foo mën di nekk en Europe aux Amériques aux États-Unis wala nga nekk en Afrique ñu mën laa bàyyi nga génne li nga xam ne dafa nekk ci sa dënn. allah kon loolu. dama la koy ñaan di ko ñaan solennellement monsieur Youssou Ndour. jërëjëf. di remercier man sama naataango googu pour bañ a guddal. dëgg la. di la ñaan nga jox ma sa numéro ndax it lu mel nii bëgg nañ am na loo xam ne war lañ koy wax te sénégalais yi nekk na seen dënn ñu war ko wax bu ko defee ñi nga xam ne ñoo ñu jiite xam ne ñu ngi def. waaye li luy def amul benn impact ci sénégalais yi nga xam ne ñoom lañ ko yéene. dëgg la jërëjëf. numéro bi bul coupé dinañ la ko jox kon loolu maa ngi lay jox waaw bul coupé dinañ la ko jox félicité sama naataango boobu. waaw. jërëjëf ñi ngi ñi ngi rafetlu euh, sa euh, dugg euh, ci biir ba tey rek maa ngi jot ay message mu mel ne émission bi ñëpp la intéressé nee nañu ces conventions existent déjà entre Espagne ak Italie on fait tout en diplomatie et c'est bizarre qu'il ne sache pas tout ça il est il est bien informé mais il ignore ce que le gouvernement fait ce qui n'est pas forcément de la politique voilà donc euh, euh, ñeneen ñoo ñu ngi may bind daal di may yónnee ay messages yu bari mu mel ne intéressé na leen nee li ñuy def du forcément politique mais ñi ngi teg ay actes euh, donc mi ngi noonu Abdou Ndaw moom itam ñi ngi koy nuyu bu baax mi ngi seetaan mi ngi foofu la ci Italie mi ngi waxtaanee entrepreneuriat. Mhm. entrepreneuriat étranger en Italie il faut qu'on des entreprises pour éviter toujours de chercher du travail dans les usines en cas de problème les étrangers sont toujours la les premiers à être impactés. Abdou Ndaw moom moo wax loolu. Abdou wax na dëgg parce que c'est un entrepreneur mi ngi mi ngi góorgóorlu. Ah. mi ngi mi ngi liggéey tontu Abdou Ndaw uh-huh. mi ngi liggéey bu baax. Mhm. Euh, ñu ngi koy remercier parce que gis nañ tamit euh, socialement li muy def euh, donc loolu li wax dëgg la parce que. tey ñu ci bëri dañuy manque benn formation bi donc bu ñu demee bay wàññi ñoom la ñu gën di wàññi mais bu immigré yi continuer ci li ñuy def parce que l' entrepreneuriat de l' mi nga am solo Italie parce que bëri na tey des entrepreneurs surtout. Mhm. Euh, ci ki may ñaax nag sénégalais yi ñuy jege entrepreneuriat boobu parce que tey euh, sénégalais bi lu ci gën a bëri bu pakistanais bi ubbee bitik mën na dem jënd fa. mais bu Sénégal bi ubbee lu ci gën a bëri buy leb la fay dem. Mhm. donc nañ am solidarité bi nga xam ne moom la yeneen xeet yi am. Mhm. ñi ci des di wax naan peut-être dañu ignorer yu bëri c'est vrai suñu ignorance boobu yàlla nañ ci yàgg. Mhm. waaye nag ñu ngi bëgg a yàgg ci xaar bi. donc bu ñu ci mënee leeral di ñu leeral dina baax. <laughs> donc euh, loolu laa leen di. tontu nee nañ que euh, am na acte yu ñu teg mais du lépp mooy forcement politique. mais acte boo koy teg dama ragal ne tey boo ñëwee ci gox. am yoo fay liggéey. lu doon doon diplomatiquement nga di ko liggéey. kenn waxul ne ñu dañoo bëgg dugg ci. li nga xam ne moom la politique bi gàng lànk wala moom la euh, diplomatie yore. Mhm. parce que ñun duñu ay diplomate. Mhm. bëgguñu ko sax nekk consul wala dara. Mhm. ñun li ñu liggéey fi ñu liggéey doy nañu. mais dañ ne li ñu xam peut-être man mun naa xam. lii ne weex na keneen xam li xonq ki xam lu weex buñ boole ñëpp lay gën a am solo te ki lay yokk xam-xam wala ki lay wax yow am nga gis-gis. mais keneen ki toog ci biti mën na am beneen gis boo gis-gis boo xam ne tey li ci italiens yi lal ci sew-sew. ñun mën nañ la ci waxal. mën nañ la tamit faciliter yenn canal yi. mais nag comme que ñun dañuy ñëw ci diplomatie ma leen di ñaan. comme que diplomatiquement la ñuy wax. ñu dimbali ñu ma koy jooyal sénégalais yëpp. ne ambassade Italie bi coono dong lay teg sénégalais yi. nañ ci wax jàppale ci immigré yi te ñu signé au moins convention de La boobu nga xam ne tey. apostille la dina tax benn sénégalais dootul réaliser benn document loolu rek bu ñu ko liggéeyanti loon mën nañ xaar ñoom ba wala ñu def leneen mais au moins nañu dimbale loolu waaw yaakaar naa ne loolu leer na te dinañ ci war nañ ci taxaw euh, mu mel ne nag Abdou Karim Fall moom itam mi ngi foofu foofule euh, Pescara moo yónni kii nee na euh, dafa bëgg juste poser benn question mhm. à notre frère Niane sur une allocation familiale qui a un contrat mhm. à quatre mois chaque année fait de la loi oui ou non merci beaucoup je vous waaw ah, bu fekkee 4 lay liggéey 4 mois yi lay fayeeku bu fekkee. ne waaw waaw ki ne ci ligne bi. baal bu fekkee liggéey. Ah. waaw ñu jël ko ba pare door a ñëw ci ah, xaritu Abdou Karim bi allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax noo def noo tudd ak foo ñuy woowee. ça va man maa ngi waaw yow rek la ñuy déglu. waaw ngi leb bëri na ba di ngeen fay. <laughs> <laughs> ñu ngi lay déglu di la bàyyeek ñaan. dëgg la ok waaw moom ko doon laaj parce que mm, xëy na xaw naa fi nekk Sénégal. Uh-huh. lu xaw a diire tuuti. Uh-huh. maa ngi carte séjour ga Italie laa nekk et puis daan naa fa liggéey yàgg naa fa liggéey daanaka ba bi ñëw fii. Uh-huh. mais xam nga boo fa gëjee rek Italie moom toujours seen i loi day so day changé ba bëggoon xam comme ku yore carte séjour boobu léegi comme lu toog lu woon un quelque demul. ndax du ci am benn problème wala déet moom laa bëggoon mu leeral sama bopp ko parce que xam nga ñun moom mooy loolu. Mm-hmm. duñ wax yenn yi a comprendre. Mm-hmm. dañuy loi moo tax. waaw dinañ changer loi mais da ngeen di jëm a conformer wu ci changement yi maanaam loi bi dafay wax ne képp koo xam da nga yor benn titre de séjour euh, moitié bi maanaam mënoo ko mm. def Sénégal mënoo mënoo ko def sa réew plus moitié bi. donc léegi bu fekkee da nga yor carte séjour un an bi yow war a romb plus d'un an wala booy dugaat boog nga jaar ci yeneen frontière par exemple nga jël vol wàcc Madrid jóge Madrid ñëw Italie wala nga wàcc Portugal jóge Lisbonne ñëw euh, Milan wa ilaa nga ñëw Bruxelles parce que en général surtout vol bu bees bi muy vol bi nga xam ne ni mi ngi euh, servir euh, Dakar Bergamo damay ba ñu tudd tour bi parce que ci tele lañu nekk mhm. bu wàccee Bergamo direct waa Bergamo dañoo xaw a sévère ci loolu parce que mhm. dañuy xool sa passeport date bi nga fa jógee ak date bi nga fa bu ëppee un an mën nañ retirer si wala ñu delloo la ne la na nga dem ci questura euh, euh, bi pour ñu vérifier waat say document te bu fekkee ne da nga amoon résidence te amatoo résidence mën na la indil ay gàllankoor donc ku ci def plus d'un an booy ñëw li ñu lay gën di conseiller mooy nga jël vol boo xam ne def escale dañu wàcc Milan direct parce que boo wàccee Bruxelles Bruxelles Milan dafay mel ni ku jógee ci gaaru Dakar wàcc gaaru Pikine donc contrôle bi du demee noonu bokkut ak nga jógee ñëw wàcc ci poste de frontière parce que da nga jógee Dakar wàcc directement Milan d'accord jaajëf baax léeg-léeg léegi dangay bëgg Sénégal pour def dara loolu lay waral tax mu xaw a yàgg léegi nag léeg-léeg nga commencé dara boo pare doo ko fi mën bàyyi. dëgg la loolu indi problème yenn yi quoi. dëgg la dëgg la. ok jërëjëf ñu ngi lay ziar bu jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal ñu bàyyi la nga tontu ci euh, ki doon wax mbiru quatre mois ak allocation yi mais avant loolu am na ku ma yónnee message Henriette depuis mm. des années je crois. Euh, merci Ibrahima li nga liggéey am na ay preuves yaa tax immigré yi di fayeeku seen allocation en plus durant pandémie bi euh, dirigé nga ay task force Covid à Brescia d'une main de maître kon merci merci encore donc ça vient de Henriette. en Henriette waaw maa ngi koy nuyu bu baax moom it di ko remercier parce que soutenir nañu bu baax ci jeunes yi nga xam ne tey bi ñu soxlaa task force Covid bi. Mhm. moom moo ñoraloon lépp lu jëmoon ci subvention bi nga xam ne moom la gouvernement bi doon jox immigré yi donc dina remplir formulaire yi. Mhm. te wax dëgg yàlla def na ci liggéey bu baax mook Babacar l'étudiant ma koy tooñ moom it comme ni may nuyoo Ablaye Bar Diouf. Euh, donc task force boobu liggéeyoon nañ ci lu am solo. Mhm. ci allocation familiale yooyu mois yi nga liggéey lañ leen fay bu fekkee ne dafa nekkoon ci secteur agricole nga xam ne dafay liggéey wala liggéey 3 mois. allocation familiale booy def demande de disoccupation agricole bi lañ la koy fay moom la ñuy wax DSCA DSA boobu ñu ngi koy déposé li ko dalee le premier janvier ba le 31 mars. Mhm. boo koy déposé nag si lañ lay fay allocation familiale at mi yëpp. Mhm. mais si lañ koy def globalement donc dama ragal ne peut ci secteur agricole bi lay liggéey. Mhm. Euh, fi may tëjee tamit mooy euh, li may wax fii. Euh, may ñaan ñi tontu politiquement ne leen man politique gu ma donte bokkoon naa ci parti bu mag ba bàyyi waat. parce que xëy na li ma yaakaar ak li ma gisoon li tax ma bàyyi dafa am loo xam ne dama ko gëmul. maanaam man dama bëgg sama waxu tey doon sama waxu suba. te xam naa ne peut-être dafa jafe ci politique. Euh, te bu may ànd ak yow damay ànd ak yow ci ànd boo xam ne dama naan la soxlu ma ci poste soxlu ma dara mais nag li nga xam ne moom la société bi soxla ñi ma àndal soxla ko. population bi soxla boo ko deful mënu ma ànd ak yow. te ñu bëri mais defoon nga politique pendant combien de temps. politique naa depuis dama ci juddu yaru ci. dama ci juddu yaru ci parce que mënoo juddoo Pikine yaroo Guédiawaye te politique c'est pas possible mm-hmm. euh, donc politique naa ba fa politique neex mais dama xam ne peut-être li may li may liggéeyal askan bi bu ma féetewoo fenn dafay xaw am lu muy gàllankoor tamit mm-hmm. te li may dama ci bëgg am autonomie bëgguma kenn ku ma ci taxaw naan ma li nga wax nii parce que li may wax dama koy wax sax tontu ci yenn yi dama ne leen nañ nañ dal parce que du question li ñu liggéey laay weddi wala dama leen di yàqal dara mais man li may wax mooy li jëriñ askan bi opposant nga ñi ngi yónnee message ñu ne opposant nga <laughs> ñi ngi sànni xeer <laughs> Ibrahima est un syndicaliste mu doon opposant mu ma jox document ki nga xam ne moom lañ faloon consul général à Milan. Uh-huh. Uh, Ibrahima est un syndicaliste et ne travaille pas seulement pour les Sénégalais il est bon et brave même s'il est censé connaître ce que fait le gouvernement au niveau de l'Italie il participe activement aux actions que mènent les Sénégalais et particulièrement ceux de la province de Brescia. Hmm. Uh, kii nag Émile Ndiaye moom moo ko wax en tout cas seede yi mi ngi jóge fu nekk uh, ci sama téléphone bi ñëpp a ngi ma pertinent voilà des hommes dont on a besoin pour amorcer la fatigue des immigrés mais pas élire des politiciens merci euh, donc euh, mi ngi noonu quoi euh, Pape Fallou moom itam mi ngi seetaan depuis Sénégal mais Espagne la dëkk ñu ñëwaat rek ba tey ci tontu bi waa téléphone <laughs> tey nag dinañ dinañ mujj bàyyi kii na téléphone bi allo <laughs> allo ñu jël ki nekk en ligne allo. vieux est-ce que demul waa dem na euh, waaw kay ñu bàyyi la nga nga nga artu ci loolu waaye vie laataa ñu dem di sori am na benn video booy teg dama buggoon ci euh, benn intervention bu mu doon def euh, vidéo bi sànq dugal nga ko vidéo bi bokkul ak photo yi boo ma ko mënee teg le temps ñuy dellu siwaat Euh, jëlaat euh, nit yi eggali li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu wone euh, dëgg-dëgg li nga xam ne moom lay liggéey bàyyil tuuti son bi mu dem vieux bii ban occasion fan la woon. waaw lii congrès national la woon. voilà bi ñu def napp. napp mhm. dëgg la vieux bàyyil introduction beeg yëpp ni koy dugalee nga teg ko après ñu ñëwaat. macchina organizzativa che c'è dietro. Permettetemi di fare la stessa cosa che ho fatto anche nell'ultimo congresso dicendo ai compagni una cosa che mi secca tutte le perché quando interviene il segretario generale tutti presenti, ma ieri siamo stati davvero meno diplomatico rispetto agli altri segretari delle altre confederazioni che erano qui presenti con noi. Perché guardate, quando si fa la relazione, gli altri sono invitati, bisogna lasciarli anche la possibilità di poter intervenire e ascoltarli con serenità. E ci hanno consentito ieri, qui hanno consentito anche a Alessandro di lanciare l'iniziativa unitaria per la, per la categoria e non è di poco conto sapendo oggi che l'unità sindacale è sempre un problema. Quindi ieri davvero siamo stati davvero molto scortesi nei confronti loro. Chiuso questa parentesi, la relazione di Alessandro ieri ha toccato tanti punti sulla quale sul merito mi trovo d'accordo, soprattutto sulla parte che riguarda gli infortuni, la parte che riguarda il risanamento, le percentuali sulle donne, la riorganizzazione e il tesseramento, quindi sul de davvero un complimento. Però guardate che noi siamo attraverso voilà mu nekkoon nag eh, intervention boo xam ne bii est-ce que mën nga ñu ko tënkal kañ la woon. waaw ah, bii mi ngi nekkoon ci congrès <coughs> biñ mujjee def. Mhm. ci deux mille dix-huit bi. Mhm. Euh, mu ko def congrès national la. ñu ciy intervenir duñ bëri dafa am ay territoire yu ñu choisir ci intervention bi ñu am ci luñ ci wax lu am solo parce que congrès bu métti la woon parce que congrès boo xam ne dañu woon choisir ki nga xam ne mooy doon secrétaire général national bu CGL man ma bokkoon ci ñu ko jàppale mu doonoon bataille bu rude mhm. donc waxtaan noonu nañ ci waxtaan bu am solo mhm. donc liñ ci tënk bëri na xëy na peut-être xaju fi mais ce qui mooy peut-être euh, wax ci sa bopp day jafe mais ñii doon euh, relate ci télé yi ak euh, ci mouvement syndical bi yëpp. Mhm. bokkoon na ci intervention yu gën a apprécié parce que mooy comme li may wax rek franc parler bi peut-être du neex ñu bëri.

Euh, dama bokk nag foo xam ne ñu ñeme dëgg lañ ñoo xam ne jànkata alxuraan lañ maam ñoo xam ne damay fier di bokk foofu mm-hmm. maanaam man maa ngi cosaanoo dëgg bu ñuy wax Touba Niane mm-hmm. Touba ngi nekk à deux kilomètres de Kër Madiabel mm-hmm. maanaam ku ko xamul tamit peut-être dégg nga ko ci ci affiche alxuraan ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci njub rek la ñuy yar nit loolu nag gën na ma dimbali ci position bi ma nekk mooy fexe chaque jour lu may def ma ciy seet sama diggante yàlla bañ ci ragal dara nag parce que nee leen li may wax moom euh, chaque jour dama koy wax maa ngi ci profité tamit di jaale Cheikh Barham Niass bu Kër ma jawel nga xam ne sama sama guide loon sama xarit la woon. Mhm. Euh, ci lim daa wax naan bu ragal parce que àdduna tànk yaa ngi dund ragal waru la parce que boo nekk ci njub rek nekkal ci njub ñëpp mën nañ la critiquer mais sa njub gi moom dina la dimbali ëllëg. donc loolu tey moo tax ma kontaan ci loolu te ba léegi tamit maa ngi jàppalante ak ñoom ci yu bëri. dëgg la euh, Ligue Nord bi ak Matteo Salvini. Mhm. Euh, moom euh, politique gu xénophobe la wala racisme lan lan la politique am. waaw xam nga ñoom par exemple ñoom si liñ déparé woon ñoom dañoo déparé woon pour xaaj Italie. Mhm. maanaam bi ak sud bi. Mhm. xëy na seen politique boobu fa mu war a yegg yeggu fa ñu boole ci nag immigration. boole ko ci ci loo xam ne xeex rek. lépp loo xam ne dafay wàññi doole immigré ñoom ñi ngi ci suba ak ngoon mm-hmm. donc politique bu xénophobe la politique boo xam ne nii politique bu doy waar la boo xam ne dafa indi bord du compte mais mm-hmm. nit ñi ñi ngi di comprendre moo tax ñu nit suñu te région bi ma nekk région la boo xam ne ñoom ñoo ko dominé ñoom ñoo koy gagné presque mm-hmm. kii ñoo koy ah. gagné donc xeex yi xeex nañoo ñoom moo tax li ñu wax naan ci allocation familiale yi dama ne peut-être ñiy tontu dañoo bàyyi bulletin de salaire dañ lay laaj sa certificat de revenu pour ñu jox la kër lu nekk la mais am na xeex yu ñu fa xeex ak communes yi même ci bonus yi nga xam ne moom la joxe tey jigéen ji fa nekk te liggéeyal war a am doom euh, dafa am ndimbal bu ñu koy jox te loolu sax peut-être dana indi problème yu bëri ci kër yi parce que góor ñi dañ koy xëccoo jigéen ñi mais jigéen ñi ñoo ko moom dañ leen ko war a bàyyee parce que mm. euh, ñoom ne mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. boo amul carte séjour amoo ci droit ñun ñoo ci def bataille ba gagné ba nga xam ne tey képp koo xam ne yor nga séjour am nga droit ci bonus boobu waaw tey ñoom yooyu yëpp ñoom ñoo koy indi am na beneen dimbal boo xam ne dañ koy joxe mooy ñi nga xam tey dañoo am 66 ans te liggéeyu ñoon pour am loo xam ne dañ koy dem retraite ñu koy wax euh, pension assegno sociale hmm. ñoo ko yóbbu tey ci 10 ans ne il faut nga am fa 10 ans de résidence am carte de séjour pour mën ko am te boo ko amee mënoo gën a réew mu la ëpp un mois hmm. kii social boobu bokkul ak retraite bi moo tax bi ñu wax léegi naan ci accord Espagne ñu mën la hmm. retraite lu nit liggéey ba moom ko la ndimbal nag mooy euh, comme kii sociale boobu nga xam ne dañ koy joxe pour ñi nga xam ne ñoo am 66 ans di la nga fay mais waruñoo a génn réew mu lu ëpp un mois. dëgg la mu mel ne retraite moom sa droit la. li ñu mm-hmm. ciy xeex kay mooy. Mm-hmm. nit ki mën a ñibbisi ci sa réew sax mu la fi euh, fekk si. Mm-hmm. ñu fexe ba signé euh, li nga xam ne moom moo di convention yi tey jii yow. Euh, yaa ngi juddoo fi nga xam ne moom moo di Pikine. ban kàddu ngay jox jeune de la banlieue rawatina ñi nekk thiaroye sur ñuy jël souvent gaal yi pour di dem. ndax yow moom issue fi nga juddoo la Pikine la te gis nañ tey li nga xam ne yaa ngi koy def ci yeneen réew yi ak fii ci lan nga leen di wax tey ji waaw di leen euh, masaw bu baax. Mhm. parce que li ñuy tekki seen der yi bëri na. Mhm. mais lu doy waar la. Mhm. dama waxoon ci ginnaaw ne man mënuma d'accord ñu koy tuddee immigration clandestine parce que. bu fekkee ne nit ki ma dama koy xool ci sama bopp. parce que dafa ma touché. parce que ñun mënuñu judd ci banlieue. yaru ci banlieue nekk ak suñuy way jur mënuñoo produire dara mënuñoo dimbali suñu waajur ci dara. Mhm. ak lu suñu waajur sonne ci ñun. Mhm. kooku tey dundam bi daanaka da ko dul jaral dara. Mhm. te yow mi nekk à l'étranger tey. nekkoon ak ñoom di petit temps ak ñoom. demoon jàngi sol kilo di gàtt ànd ñoom jàngi tey yow sa waa kër amuñ problème dépense ndax chaque mois ñu gis ñaari saako ceeb nga dugal ko fa ku fa feebar nga yóbbu ko hôpital mu faju bu nit amee xew ci koñ bi nga dugal ci sa loxo ñoom ñu nekk fa di ko dégg chaque jour waaw kooku tey boo ñëwee ne ko toogal bul dem lan la lay wax. Mhm. man de aw ma ngor googu ñëw taxaw ne la bul dem. dëgg la la may wax mooy nguur gi nan lay def ba mun leen jàppale. Mhm. encadre leen ak discuter ak partenaires yi ci accords yi ñu signé pour ñu am ci ay quotas xam ne nit ñu danañ mën a génn régulièrement dem liggéey donte mënuñ leen wutal liggéey ci réew mi. Mhm. mais boo taxawee joxoo leen dara defaloo leen dara pare ne leen du ngeen dem ah man de duma ko def man daal li may wax mooy ah risque bi de graaw na te la nekkoon foofu nekkatu fa. mais mënu wax nit nag ne bul dem. loolu laa li may conseil nag mooy ñu fexe gëm ne réew mi peut-être mën nañ fee tekk waaye nag mm. fi ma jaar man wax dëgg yàlla du ma mën a ñëw nag ce serait un mauvais conseiller man mm-hmm. ci côté bu parce que dama génnoon dem wuti mm-hmm. ñëw te mm-hmm. mi ngi dox waaw Euh, dëgg la euh, mu mel ne kon euh, mbir mi nekk na loo xamante ne du lu yomb ndax nag sa jaar-jaar comme ni nga ko waxee xam naa ne tout n'a pas été facile. demuloo rek mu egg ndax yaa ngi dem ci atum 80. 93 93. waaw na nga def ba egg foofu. Mhm. méttiwul rek nga découragé. te mun na inspiré ñeneen est mun nga ci ñëw tënku ko. dafa métti. Mhm. maanaam dama ne ñun waruñoo nëbb suñu jaar-jaar. Mhm. parce que buñ ko nëbbee nous ne sommes pas honnêtes te duñ dimbale nit parce que tey bu njëkk ba. amoon na. Mhm. ci télé la ñu nekk am na ñoo xam ne doo ko mën a wax directement. Mhm. Mhm. mais ku ci nekk xam nga ni nga defoon ba génn. peut-être booba mbëkk gaal amul. mais am na noo daan def mën a am visa. am na document peut-être yoo daan yor pour mën a am ci visa pour génn. donc yooyu possibilités yi amoon na. te xëy na booba lañ gënoon a soxla yenn liggéey yoo xam ne liggéey doole la mais nga wàcc ci réew amoo fa këyit defoo fa dara. amoo fa këyit jàppoo ci dara nga ñëw pour rek jaay sa te déggoo ce qui mooy jaar nañ ci moment yu métti dama lay xam ne la euh, da ngay dem ba boo wàccee tey hôtel bi nga war a fanaan mhm. boo jaayul tey doo fanaan ci hôtel bi maanaam ci oto ngay fanaan mhm. muy taw sa kaw xam nga condition yi tey ñun lu suñ mbubu rafet rafet luñ kii kay lu ñu tudd tey tey lu ñu doon doon ay leader dañoo jaar fu métti mhm. te fu métti foofu il faut nit ñi xam ko il faut nit ñi xam ko nga nekk ci di ñafe di xëy di wàcc ñii di yor seen bàngara di jaay ñii di liggéey ci boulangerie ñii di liggéey liggéey yu métti lañ lay fay daanaka boobu jamono liira la li lay fay peut-être du bëri benn bëri bi mais coono ba moo doon ëpp mhm. tey mënoo taxaw nag ne nit ñi wax dëgg yàlla tey daal gis leen mu ni daal lépp dox na non non non dara yomb ci woon te dem boobu ñuy dem suñuy parents ñooy sacrifier lu ñu am jox ñu ko pour ñu mën a dem mm-hmm. ñoo ñuy daggal bi ñoo doon def lépp mm-hmm. donc parents yi tamit gàcce ngalaama ci ñoom mais daal nañ xam ne dara yombul amul dara lu ñuy maye dëgg la bu ñu fexewoon nag ba nit ñi mën di voyager réew mi peut-être nit ñi lañ war a am mm-hmm. amuñu ko ah toogloo nit ñi dañ xaw a euh, mu mel ne nag euh, ñu ngi suivre en même temps Euh, ci li nga xam ne moom moo di YouTube bi ak euh, site ugfm bi. Mhm. Euh, ku tudd Lahat Kane ñi ngi koy jaajëfal Siga saw nee na macha allah wax ji yéenu na maanaa am na solo très bien Siga Sow yow tam kontaan nañ beaucoup de cœur pour toi aussi Thierno Bari Africa dañoo sànni xale yi fii yi ci Canada ak USA ñuy yaakaar xale yi xaw ma lan la tudd nee na foster care la tudd. xam naa loolu moom dinañ ci gëstuwaat mi ngi tudd Thierno Bari mi ngi am information bu muy joxe euh, Serigne Sarr nee na allocation bi leerul de. xam naa bëgg na ko ci ñëwaat ci mbirum allocation bi fi ñu toll nii ñan ñooy fayeeku allocation ak ñoo ko warul fayeeku defe naa ñëw nga ci euh, Ibrahima Bari moom itam également Fatou Seck Fall ñoom ñëpp ñi ngi suivre salaam la famille euh, TFA gis nga la famille TFM euh, meilleur de sa génération Ami Diba Diem nit ñi daal ñi ngi réagir important Kébé TV Fatou Sall Siga Sow ñoom ñëpp ñi ngi seetaan waxtu wi na Bari ñi ngi koy laaj naan ko lu xew ñun tam leeralal ñu bu baax Italia molto difficile moom mooy. c'est très difficile c'est wax dëgg Sénégal la ñoo ko war a jëriñ personne d'autre ne se mettra à notre place pour le faire loolu mi ngi jógee ci Siga Sow Khady Bobo Niang émission très instructive merci Kebs merci à toi aussi euh, ki nee na am na daal lu muy expliquer nee na deux ans entre loolu yëpp dinañ ci ñëw après bravo grazie mille fratello la ñu wax ah maa ngi bëgg a wax italien de <laughs> maam faatim Jiite ah Ndéla Lo également euh, kii moom li mu bind mënuma koo lire italien la. <laughs> BKEAM la ah. Euh, Mabouri Fall moom itam euh, joxe na numéro am donc ñoom mënuñu lire ñëpp ko mais uh, Sam euh, bu TFM merci donc bëri na ñuy réagir euh, di kontaan ci sa teewaay. Euh, Dof Ndiaye nit Diop depuis la Suisse ñoom itam ñuy suivre waxal ci kaw mësul yomb non grand nañ mbir mi yombul euh, ñi ngi en tout cas ñi ngi kontaan bu baax ñoom ci euh, émission bi li ñu ci jooy rek mooy waxtu bu gàtt bi te xam naa ne du ñàkk beneen occasion boo xam ne di nga mën a teew incha allah bu ko defee ñu mën a def li nga xamante ne moom moo di waxtaan ñu bàyyi la rek nga wax leneen li nga xam ne moom la ñuy tëjee émission bi ndax toll nañ ci presque fin bi dafa neex ba heure bi gaaw <laughs> li ñuy tëjee du mooy euh, li ma li ma waxoon ci début ba. Mhm. ñun ñoo war a jëriñ Sénégal. a mhm. waruñoo xaar ci Sénégal yenn yi. Mhm. Euh, dañuy xool en Italie fi ñuy dund. 60 ans ci ginnaaw ñoo gënoon pauvre ci àdduna bi. mais seen nit ñi dañu génnoon dem. ñii dem Australie ñii dem Amérique ñii ah, dem Suisse ñii dem Belgique. parce que léeg-léeg sax bu ñuy jàppante ñoom ci seen télé yi dañ leen ko wax dañ naan leen yéen réew immigré ngeen woon maanaam Marcinelle am na lu leen jox lu bëri. ci kiiwu charbon yi dafa xewoon dañ leen koy fàttali chaque jour di leen ko ne leen tey ñooñu ñoom ñoo dellu si créer industrie créer ay société ba ci li nga xam ne tey bëgg naa ñun immigré ñu jàpp ci mooy ku ci nekk gox ba nga dëkk fexeel au moins mu am benn ambulance wala mu am benn poste de santé. lu mu tuuti tuuti tuuti am benn infirmier bu fa nekk li ñuy jooy nag mooy dañ koy tabax ba pare pour ñu am infirmier day jafe. Hmm. tey man dama koy xool ci village bi ma dëkk muy Touba Niane dama fa tabax dispensaire boo xam ne am na plateau médical bu relevé mais infirmier ba fa nekk ñun ñooy dajale ba léegi di ko fay. may ñaan ñu jàppale ñu ci pour ñu jox ñu infirmier te loolu du man rek ñëpp mi ngi koy dem donc moo bëgg immigré yi. Hmm. ñun ñoo mën a suñu dëkk yi. suñu dëkku àll yi bu ñu leen bàyyee ñu gent. lu ñu am nañ ko delloo ji foofu defar ko ba suñu jigéen ñi suñu jigéen ñi bu ñu amee bu ñu nekkee jigéen mën a dem am visite prénatale ak yooyu ñu koy def ñun ñoo war a jëriñ suñu réew donc loolu dama koy lancé bépp immigré boo xam ne yaa ngi seetaan ak bu seetaanul ñu bàyyi xel ne ñun ñoo mën na defaraat suñu réew. Mhm. tey mun nañ fexe ba gox yu nekk am ay cinq ambulances yoo xam ne mun nañ def benn numéro boo xam ne ko am soxla war na la mën a jël lu muy guddi parce que jigéen ëmb ba toll fi toll ñu jël ko teg ko ci saretu mbaam di ko yóbbu ba ci mhm. benn kii loolu wax dëgg yàlla waratul am donc loolu maa ngi koy lancé. Mhm. di nuyu ñi ma àndaloon ñëpp di nuyu Ousmane Sarr euh, Ibrahima Aw. Ibrahima euh, Abdoulaye Diouf sama sama chauffeur bi. Uh-huh. di nuyu euh, Ablaye Bar Diouf Mm-hmm. Euh, moom it nga xam ne wax dëgg yàlla c'est un jeune très dynamique. Mm-hmm. Euh, am de bonnes relations en Italie am carnet d'adresse bu baax. waaw nit ku la ku baax la ku disponible. di nuyu Augustin Faye nga xam ne mm-hmm. dinay jokkoo ak ci lu bëri. ci ci diaspora vision correspondant foofu nuyu nag président association yi nekk ci en Italie yëpp. di nuyu sama ñëpp daal maa ngi balu ak ñëpp nag parce que. peut-être sama wax dafay dëgër léeg-léeg mais li may wax yëpp damay bëgg rek muy tegu ci yoon mais ñun sénégalais yi maa ngi leen di gërëm daal bu baax di balu àq ñëpp parce que chaque jour da nga yoral nit àq ndax nit mën na laa soxla mën na laa jot te jamono bi mu la mënta jotee kat ah, soxlaa mën na faa donc maa ngi leen di remercier bu baax di la remercier bu baax di nuyuwaat président groupe bi di ko renouveler appel bi ñu defoon ci début bi mooy ñu gën a jàpp ci émission bi mu doon émission boo xam ne dina am timing bu baax ak euh, heure bu baax dina mën a heure bi sax mun na baax na waaye buñ ko defoon dimanche daal xam naa ne immigré yi ñu koy jooytu la muy tëjee nag mooy ambassade Italie au niveau de Dakar. ñu jàpp ci ba nga xam ne tey document yi ni ñi soxla pour légaliser ko ñu mën ko légal te seen légalisation yi joxe e rendez-vous nit ñu mën a déposer en attendant gouvernement bi di trouver solution ci apostille bi parce que bu ñu amee apostille rek. Mhm. problème bi jeex. dëgg la vidéo boobu laay tëjee euh, vieux euh, préparel ma ko mooy bi ma la mujjee yónnee euh, mu mel ne rek il y une convention appelée immigration circulaire nee nañ. Mhm. boo xamante ne bii day jël en charge les jeunes pour aller travailler et revenir légalement. Mhm. circulaire boobu am na. nañ ñu jox ñun ñi ngi am na lu ñu for di ko dégg mais xam nga li ngay dégg ak li nga gis bokkul. Mhm. ñun dañu bëgg a xam rek chaque jour. Mhm. li ñuy wax chaque jour mooy li ñu bëgg xam. Mhm. mooy pour bu amee loo xam ne doxul ba lañ leen ko signaloo ñu ne attention lii kat mënoon ngeen a améliorer lii. mais waaw ah, convention euh, appelée immigration circulaire jeunes yi mën a jóge fii dem liggéey légalement. dem liggéey parce que bëri fa ay période yoo xam ne nii tey bu ñu waree jël orange yi. bu ñu bëggee jël pomme bu ñu bëggee liggéey ci tamaate ji man mii di wax rek di ma wax naan yombul. dem naa ci toolu tamaate di liggéey. pour am lu ma ñax ki donc bañuñu ko buñ ko tegee ci yoon ah, xamal ñu dinañ leen wax te buñ koy def nag mhm. ñu jox ko ñu ko yelloo bañ ko jox xarit ak doomi xarit yi ah, jërëjëf message baa ngi noonu en tout cas ñun amoon nañu mbégte ngir euh, euh, def li nga xam ne moom moo di émission bi ah, li ñu bëggoon waxtaane yëpp sax dafa xajul ci euh, waxtu wi waaye vraiment ñi ngi kontaan bu baax ci sa teewaay di remercier bu baax Abdoulaye Diouf Baar ñoom Abdou Ndaw ñoom ñëpp ñi ngi leen di jaajëfal mhm. ak képp koo xam ne yaa ngi Italie waxtu wi doon seetaan émission bi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi mi ngi leen di jaajëfal ah, di leen dig daje ah, altine bii di ñëw incha allah laataa ñuy jeexal nag vie image yooyu laa bëgg mu daal di ah, nga tëjeele ma ko ndax nag moom laay tëjee émission bi di remercier toute l'équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ñoom moor Xarma Vieux Diouf ci réalisation bi ki nga xam ne moom moo di Baye ci son bi ak kanati Pape Mor ñoom ñëpp kan la bu Diouf ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax Vieux voilà waaw maa ngi remercier ñooñu ñëpp euh, di wax nag ni également euh, maa ngi remercier bu baax Awa Ndaw borom salon Latifa pour euh, perruque bi Awa Ndaw moom laay gërëm bu baax ci perruque bi mi ngi nekk foofu foofule ca Bourguiba bu ngeen demee façon yëpp am na fa di remercier bu baax kii nga xam ne moom habillé sama rakk ji nga xam ne moom moom habillé doomu ndeyu Ndeye Gueye muy Doosa ah Doosa moom moo habillé xam naa après dinaa dinaa dugal euh, numéro bi parce que fi ne Vieux Diouf ak ma taxawu euh, sama xarit bi laa bëgg nga teg ko rek jeexalee ko parce que xam nga dañu nekk ci euh, li nga xam ne moom moo di fin d'année te fin d'année gis nañ président Youssou Ndour concert bu mag bi nga xam ne def na ko fii bi mu ko fi defee tam immigré yi yëpp à leur façon tam dañ ko célébrer seen kër yi ñoom tam def la grand bal donc ma tànn ci kenn muy sama xarit bi nga xam ne dafa bëgg Youssou nduur bu baax a baax mu daal di koy ma jeexalee ko rek tëjee ko émission bi wan noonu lañ ko passé Abdou Karim euh, maa ngi lay wax euh, merci beaucoup gis naa li nga xam ne moom moo di message bi nee na le contrat c'est dans les hôtels pour l'été comme Pescara une ville de touristes la majeure partie des Sénégalais et Sénégalaises travaillent dans les hôtels et restaurants euh, donc moom contribution am la woon képp koo xam ne waxtu yaa ngi toogoon di seetaan rek ñu ngi lay jaajëfal vie boo ma mënee tegal vidéo boobu le sama xarit boobu ni nga xam ne la célébré ma tëjee ko ñu terminer en beauté di leen dig daje di ñëw ci beneen numéro seen émission diaspora ci également euh, mag yi euh, nga xam ne moom moo yore service digital bi moom ak euh, Pape Jean vieux maa ngi lay déglu waaw bu ko defee ma tëjee ko maam soxna loo sama waa ji sama waa jooju nga xam ne moo gën ci man moom dafa célébrer li nga xam ne moom moo di nouvelle en bi <laughs> ànd doog famille yëpp ñu koy feete ma tëjee ko en beauté yónnee naa la ko lii ñu jeexalee ko. ñoo ngi nii ñoo ngi nii ñoo ngi nii vie. Bonsoir. Vie,